أنت ربي وكنت لي بدادي Touba Taïf Karo nekk fii ci Grand Yoff en face hôpital CTO Taïf Karo nag Jibi Bamba mooy gérant bi ah mbokk yi Touba Taïf Karo nag kenn dootu leen ko présenté ci biir réew mi lépp loo doon wër ci wàllu karo yu baax gaawal gaaw ñëw ci suñu biir place bi di Touba Taïf Karo nga mën fi fekk ay karo italien karo espagnol wala karo indien ngeen mën fi fekk ay karo poli 1 pour seen ay salon wala salle de conférence ngeen mën fi fekk ay karo décoration yooyu amul fenn ay carreau faïence pour seen ay cuisine wala seen toilette ay grès poli 60 60 ay plinthe wala ay baguette ba ci ay carreau parquet lépp am na ci biir Taïf carreau ay carreau espagnol 60 60 wala 40 40 marche escalier wala contre marche ah mbokk yi lépp loo soxla ci wàllu matériel sanitaire gaawal gaaw ñëw fii ci Taïf carreau li ci gën a neex mooy Taïf carreau defal client yi promo boo jëndee carreau yooyu dem ci kër gi yépp fii ci Taïf carreau nee maanaa la matérielu sanitaire ñoo la koy offrir defal la ko cadeau muy siège anglaise lavabo ba ci lépp luy taaral salle de bain waa Taïf Karo dañ la koy may moo xam kër gi nekk niveau niveau de wala niveau trois Taïf Karo nag am nañ beneen place bu nekk fii ci Cambérène ah sama mbokk yi yéen ñi nekk ci diaspora bi am seeni sànca fii ci Sénégal bëgg a karole seen kër ba mu mucc ayib adresse bi fii dong la ci Touba Taïf Karo gaawal jël suñu numéro téléphone 77 76 88 wala 76 923 33 85 ak Touba Taïf Karo ñooy number ci wàllu jaay karo. boobu tamit gisee Gaston production. xam nga Alioune Seye mooy Alioune Seye bu ñu wal noonu tudd n'est-ce pas Alioune Seye dafa am lu mu ñam mu neex Alioune Seye daawul dóoree bu njëkk Ibadou Rahman la woon daawul dóoree léegi ñam na ñam ndeyjoor bi ñam na ko mu neex mu ñamaat ko mu ñamaat ko da koy bëgg a ñamaat. tay tey Quench kat la mbeur dafa mbeur pire la dafa am ndox tu bëre waaye problème Quench moy garde ba baxul te mënul xex Quench wa Quench wa mom ñaa ben fay bobu la am ci lamb loolu loolu la ko mëno indi. ah kurpe ñu war day wañi xel. ponkal mu yëkkati 30 kilos 40 kilos diko biceps bicepsé. Ya. bu la ci nop bi lan la waxon kër gi dang koy fatte koy akbar buk buk sur bu la wax ni jëlal corée hmm. saga ko. boxeur bu la wax jëlal perkil saaga ko. mais léeg-léeg gars yi ñu naan ay da war a encaisser door a mën a jàppanteeg mbër waxi dof la. dañ naan la moytul coup bi jàpp ko xoolal coup bi nga moytu ko jàpp. fii kii faa nga jël coupam nag. waaye boo jëlee coup ñu doon ci nopp nga nelaw nag ndax di nga ko ndax di nga ko jël di ko jàpp. dina xam nga kët si. dañuy kët see mbër yi waaye ñu si bari dégg ñu àndaa daal li te fekk ku dégg galañ moo neex a tëggal xaayaan ku dégg séeréer jëlal coup bi jëlal coup bi jàpp ko. waaw léegi bu la dóoree ci cornet sa mâchoire. sa bi sotee ndax di ko jàpp. doo ko jàpp moytul bi jàpp ko. wala xoolal coup bi nga moytu ko jàpp ko. coup bi ngay xool mu dóor nga def latéral daw jàpp ko waaye jëlal coup bi. man de bon mbër ku ma ko dinaa la saaga. la teel a jàppi. teel a na teel a jàppi parce que moo gën a gàtt ay cër. moo gën a gàtt ay cër te mën naa bëre na teel a jege ji waa te boobu combat ñaari fausse garde la moo tax Quench man su du xeex day teel jàpp Alioune Seye da jege ñuuxu ko pour distance bi dafa war a bëri comme combat distance di xeex ak waa ji di ko xañ boppam pour tuuse ko pour tuuse ko mu kaawate mu doog a bëri. buñ runkum tey ñoom ñaar jàppante. ñaari jinne lañ nag géejewaay nag. ku fi dak bari Alioune Seye 2 amul wa bu deug dee deug rek wa to top na ko mbapat Alioune Seye 2 benn problème la mom ci lam moy daawul dóore ok tay amna lu ñam ci loxo bi leg ñaata mbeur la fi dóor ñu daanu ci ci ci yi ad diggante daaw ak daaw jek mo ngi bëgg bari de. ha te ñam nako mu neex da koy bëgg ñamaat léeg-léeg Quench war ko ci bayyi alin Seye 2 combat distance la wara bëre deglu waji fu waji yengo mu remise dox fo waji yëngoo mu remise bu ñe mu sol naax dóor uppercut Quench du ko war teel a jege teel koo chargé bu mu ko may fu mu xalaté mais Quench mën na sonal Alioune sey ci bëri. ah Quench di ndaanaan Quench musul dégg mu ñël di macha allah Quench benn niil la Moussa moog Diène Kairé te bobu dafa ñëw xamna ni Diène Kairé bo tégué pied gauche day mam sa kaw mu tégal ko droite tok di ko parce que Diène Kairé boko ko pied gauche day mam sa kaw boko ko le pied droite mënu ko waaye tegal ko pied droite tok diko ci bayen ba jël benn responsabilité nak tok diko ci si ko lepp bañ mu tax ñu nil mais warna taxaw sur place moom Quench di break euh, Alioune Seye ñu langu ñom ñaar wala combat déplacement la. jarul déplacer wu Quench da war dox ci kaw Alioune Seye hmm. waaw parce que Alioune sey bu taxawé à distance Quench ta à distance Alioune sey mën nakoy dur ci te ci du fay parce que Alioune sey mo gëna a gudd loxo. xam nga bëre njool ak bëre ndaama combat distance la bu dee ci côté njool bi njool mi daa war a di ñam di di dab placé wu ndaame li moo war a njëkk a dóor moo war a njëkk a jëli parce que diggante njool la ak ndaama léegi nag nit ku nekk ci forum la war a imposer moromam. nan la war a recevoir ku Alioune Seye moom ko si comme ku ne Alioune Seye dafa mën a xeex. ñaari fausse garde lañu saa bu Alioune Seye di dóor daa war a génn. daa war manam génn maanaam tey boo fausse garde ki teg fausse garde yow sa bopp waroo ko njeganaayal fi fi ngi ko njeganaayal parce que rocher bi ni lay joge te ci beut bi lay dal leg sa bu dóoree nga génn nga remise wala nga jëli ko waaye bo bo boo wéeree boo njeganaayal sa bop bi fi sa bu droite bi joge fi rek mu ngi mu ngi mu ngi bi beut bi lay xonk wala mâchoire bi newi rek de. mais cointre bi ñewon euh, contour ki nga xamantene moy euh, la Rose. Mhm. ndax mo war a di bu gën a vigilant moo war a ñëwaat Quench bu war a gën a gaaw parce que Alioune Seye 2 moo gën a dangereux kee nu mu tudd. Lagrosse si côté bëre si côté bëre. Alioune Seye 2 dàq koo bëre géey xam nga lan moo ko taree ci làmb. ma ndeysaan dafa dafa lewet man dafa yar woon bu mu ëpp loolu moo ko tareel ci làmb waaye bu dee bëre rek rek rek booy bii booy bii dëkkoon parcelle. te ak ca ceene woon te ba ñu dijji neen tudd. yandaa ku ko bëgg ku ko génne làmb ji. mot ma ko Alioune Seye dóoroon boo demee ma koy ball nab ba jóg na te la bàyyee dem États-Unis ku ku mel noonu ku mel noonu nag laa <laughs> ilaaha illa waa ji jinne la de. Alioune Seye dama ko topp Alioune Seye 2 ay Maguette Seck nañ dem leen topp noonu dama leen topp Mbapat hmm. Maguette Seck boo xoolee tey làmb bàyyi na ko ginnaaw waaye Maguette Seck presque boo xoolee am na 17 victoire. daanaka. 17 victoires champion ko am. waaw. pagala dama yokk pagala pagala ma yóbbanti won moy na naa ko waxal ne ko nañ ko jox combat. pagala ma ne ko yàgg Bébé Saloum làmb la. bu la bebe salum munta bayyi mun munta bu la Bébé Saloum bañul doo doo ko bañ. dëgg la loolu làmb di neex dimanche laa mhm. mu demandé mako ko. ma ko su fekkee def na émission. dina dina waxal ci waxu kay ba. ndeysaan. waa kay. mais lamb ji bu gawé diggante Quench ak Alioune seyde kala arrange ci ñom ñaar ñep ñom ñaar ñep parce que jamono bi tolni kenn du jël combat do entraîné mbër mu bëggul dara rek mo koy def million day soppi nit million. melal ni la tudd. melal ni la tudd. man do na fi entraîné ay mbër. léegi hamburger la yi ndekkee. man mburok ndambe mburok mayness batay batay kon million so million soppi na la. c'est yi nga seen moto yu jar ay 600000 man ci tataay laay dugg ak super yi. million moo tax mbër muy entraîné defal su fulaak sa fayda. million day soppi nit million tuddul million de. melal ni defel ni waxel ni ay million neex way yàlla ñu ko yalla may. amna solo benen combat tamit. mo ngi ci bir euh, combat yi. Mhm. muy combat bu spécial. Mhm. muy le premier mai. Mhm. diggante bombardier. ak ki nga xamantene moy franc. bobu lamb tamit. Franc da wara a beure sax sarax leen donc da wala mu jël trip ak dolem lo rek la Franc war a bëree Franc moy xalé mo wara def lepp bo mbeur ji amul lu muy perte parce que ku beure 15 ans ce temps loy perte ti bo mbeur ji wara ñëw taxaw jox ko lepp Franc mo wara mo wara diriger xex bi mo wara beure beure bi mo wara dan dan bi parce que loolu loolu laa gëm man xalé soy beure ak mak da nga wara am ben fulla am benn fayda arbitre ne prix nga ne ko may xale may mag yow toogal may bëre maay bë maay maay bëre may xeex may daan te loolu nag ngëm loolu nag ngëm ngëm taxawaayu euh, Franc lan la war a mën a nekk ci làmb jooju la tool ci ay guddeem mat na 1 mètre 90 te lu mu gàtt gàtt war na mat 120 kilos te Franc maa dina bëre kon amul lu muy ragal moo war a xeex moo war a bëre Bombardier xam lu mu war a bëre par expérience tëj ci kaw tëj ci suuf di ko seetaan mm-hmm. bu Franc jógee mu corriger ko bu fekke mën na nek mm-hmm. xale bo xam nga lan mo lan mètre quatre 1 m 90 120 kilos nga nek xale. nga ñew ba ci bir lamb na da ngay calcul andu ah fa am calcul fu mu yam yow da ngay soof. xale da ngay ne ma, ëpp doole ma mën may bëre may daan te Franc wara a def. Bombardier amul perte amul ñak comme bu la combat Franc mo def mo wara a diriger xeex bi mo wara a mo wara japp mo wara dan sans bombardier ci lamb taxaw di ko seetaan. do kese lu muy def leen man dina bëri xalé magee la lu mat 15 ans. bëri lu mat 15 ans. at bi la ma lay jaay dole lolou li fi def la. mais dañoo gis Bombardier combat am ak euh, ki nga xamantene mo regret Reug bi mhm. passé. Mhm. dafa bëre ba paré ñu ne dafa commune yoy nan ko. ndax jël bu yomb bi est-ce amul expérience xam nga ku melni ay reuk ay franc ay Serigne Ndiaye bu fas dañu man di bëri maanaam jamono buñ tolni seni goudi la. parce dañu mbapat bëri simple ak general malik dañu bëree bëri mbapat mbapat mbapat dañu man di bëri kii bëri nag mooy daanu moy juum way ñom dañu man di bëri. bu ñu xeexee ñaar. ku ne mën nga mën nga dóor sama ram wacc bo ma Bombardier mën na sonal. way ragal na ni xex bu dangereux du fam am. Hmm. Hmm, parce que Franc droite lay tek Bombardier tek gauche te droite Bombardier day sori day sori Franc gosu Franc day day sori Bombardier tay Franc droit la wara xexé xeexee Bombardier gos la wara xexé bude bu dee Bombardier war na xex dina xex sax. kon Bombardier japon euh, ni mën na xeex ci lamb bu bu xexé du ci mën naa parce que bu sané ko resal long waji mën daw riñan ko wala mu tibbu ko sànni attention ki ba pat kat la tamna dole te xalé la te Franc dafa mat. nan nga len gisee ñom ñaar. non Franc gis naa benn vidéo am liggéey na de. non Franc liggéey na wax dëgg yàlla. Bombardier nag day mag moo xam ne ñu toppal pari pari foot bi waaye nag diggante âge la. 45 ans ak borom 25 ans bokkut. mag mu am jom rek mooy entraîné ba 45 ans ak mag mag mu am hygiène de vie te Bombardier dafa am hygiène de vie moo ko bàyyi fii ba léegi waaye Bombardier tey bari na fi mbër yoo xam tey moo leen mag fuuf gaare nañ bu yàgg. gar nañ bu yàgg tey am na ci ay boo yoo xam tey ñu ngi doon bëri fii nekk ay xale yu ndaw wallaay dem na retraite te te asma atul. Franc pour combat bi la ko mën a yóbbu bu daanee Bombardier. Franc day dugg VIP. waaw day dugg VIP. benn ñetti combat yi moom mënoon naa am ci arène bi waaye jaxasoo na mooy digg Franc sëriñ Ndiaye Reug Reug loolu ñu ñoom ñett ñooy dese làmb ëllëg. seen combat nag dina ñor yi waaye du léegi lay ñor. waaye bukki wiiri wiiri wiiri wiiri jaari ndaari ci ñetti ñi ma la wax nii. mais mën nañu gis combat bu neex. ban. Franc Bombardier. combat la nag xeex biñ ciy teg xeex biñ ci yaakaar du ko demee. man maa la wax lii. tamit. bu dafa war a gaawal combat bi. waaw Franc dafa gaawal combat bi parce que tey bëreeg Bombardier

ndeysaan beneen combat bi ndax xam nga ñaari mbër yi yaakaar naa Youssou Ndour xam nga ko. bu Balla ak Talfa. ak Talfa xam naa ko. boobu laa am. Youssou Ndour ak Talfa dañoo nuruwul bëre. Mm-hmm. Talfa bu gaaw lay bëre. Mm-hmm. Youssou Ndour yéen bëre benn benn lay bëre. Mm-hmm. tey Talfa man su ma doon conseillé. dama waa ji. baal moom xeex bu gaaw. xeexal xeexal ak moom xeex bu gaaw daw jëli ko. Youssou Ndour da ko war a xaar suuf saa bu Talfa jógee mu sol ko naax du jam ko épercule parce que ñaari njool lañu te Youssou Ndour day mbot day caxabal day plaqué waaye combat bi bu ma sañoon bu bu bu waaj àgg tànkam Youssou bu ko Talfa xaaj de. Mhm. déedéet. mais gars yi nee nañ da koy géem ndax mun naa géem Youssou Ndour arbitre bi sifflé mu dox ci kawam. avec manière. Hmm. waaw lamb la xam nga lamb ku ne say sa kër nga koy jëlee fa tay fa li war def ak Youssou Ndour moy xex da wara xex xeex Youssou Ndour. Hmm. pour Youssou Ndour jog mën ko mën ko mën ko sacc Youssou Ndour sa bu xex Talfa sa bu Talfa woy ci xex na retiré na koy remise su ñëwee mu dëbb ko sol téye ko dogu ko bëre Talfa bëre bi dafa gaaw te te moom si nima gis mu nima ko xam nga Mbaye Tine daan naan la Mbaye ku ko dàq bëre geey way amul mang koy nuyu sama xarit la. te mbaytin xeetu bëre bi comme bi bi bi ko bi ko talfa bëreel dafa dem ba ci biir bëre bi sax moom dafa dafa comprendre trop bëre bi parce que booy bu ne yunn nga wàcc day dóor bu jàppee nga jàpp mu rocceeku dóor léegi noo koy calculer xam nga xam nga bëre dóor calcul 2 la bëre simple calcul 1 parce que bëre simple da ngay jàpp ma jàpp ñu def épreuve de force bëre dóor nag da ngay dóor di xeex di xex di beure leg mbeur mi yalla may na ngay xex di beure di door di beure kok da ngay rekal kalkin mais mais euh, Youssou Ndour war na topp Talfa si rythme am parce que gis nañ Talfa à chaque fois bu arbitre sifflé dé daw dox sa kaw def lu mi def. non Youssou Youssou Ndour ko war a déglu. da bañ a Talfa bu rythme bi mendi bu ko ci Youssou Ndour fekk beure bu gaaw bob nako nako nako nako nako nako nako fat. est-ce que war ko arrière. lamb ak arrière ànd Modou Lo ñàkk arrière moo tax Balla Gaye di ko daan Modou Lo bi mu demee ba son daa commencé di arrière Modou Lo daawul arrière mbër waaye bi mu demee ba xam ne lamb ak arrière ànd day arrière tax Modou Lo arrière contre Ama Baldé arrière contre Boy Niang lamb lamb lamb ak football ñoo xaw a la ak défendre mbër nag boo mënee attaqué mën défendre mën a xeex mucc ci yow day jafe. Balla Gaye 2 ak Tapha boobu lamb tamit. Mm-hmm. yaakaar naa Balla Gaye actuellement nekk fi. Mm-hmm. Tapha Tine tamit nekk fi. Mm-hmm. boobu lamb gars yi ñoo ngi koy waajal bu baax a baax. boobu lamb nan ko gisee. xam nga Tapha war na benn wax man d'accord naag moom foofu. combat bi amul lu may wax. maa ngi dem naa liggéey ñëw daan ko. Balla Gaye na liggéey fii laa toog fii ma toog nii. laa toogoon ma ne Balla Gaye de daa war a bàyyi lamb jusqu'à 6 mois jàpp 1 naa dem entraîner ñëw. parce que Balla Gaye bu amee doole rek ba Balla Gaye bu amee doole ay mbiram di métti tey dafa daan tafatin kon tafatin moom yërëm moo am taas taas tafatin dafa ñëw pour ordre javel yërëm pour maanaam mu leeral tafatin gis gis naa ko tafatin bi ma gis nii moom pare na waaye lenn mooy des muy fulla ak fayda tey tafatin laay wax du ma wax ci Balla Gaye tafatin bu amee lu muy sikki sàkk ci Balla Gaye di ko daan mais vidéo yi di circuler loolu la lay def ci ñaari mbër yi xam nga Balla gay gis na ben gis na ben photo buñu ñu wane xam nga fofu Europe la xam nga Europe. Ah. way Balla gay mënu entraîner entraîner bëgg na taxaw bëgg na taxaw bëgg na taxaw tafatine Balla gay nga ne mënul am doole ñaar yoon ci kaw tafatine wala. Balla gay mënu entraîner entraîner bëpp tafatine doole. lu waral lool way Balla gay mo dakk bëri tafatine parce que Balla gay mëna na bëri mooy géej am na ndox parce que gis nga man duma neub sama deug sama réalité. gis nga tey boo yoroon 4 x bu bis pull bu jógee Europe man ma yor 4x4 boo xam bi dañ ko segmenté ñu taxaw ci autoroute bii ñu ne départ leen ngeen rawante jëm Touba yow boo la doublé yow la yow la waaye du oto bi su dégg nga bu baax la ma la wax. dégg naa lu wax bu bees 4x4 mis bis bu jar 40 millions. oto bu ak 4x4 bu jar 40 millions ñu segmenté moteur bee bee segmenté bee wàcc vuna bees pull kee bu doublé. chauffeur bi la waaye du oto bi. Mm-hmm. day defaru Tapha Tine daa pare. Tapha Tine moo ëpp compétition parce que Tapha Tine ñaata combat la fi bëri daa jóge ci entraînement demaat ci entraînement jóge ci entraînement demaat ci entraînement. Mm-hmm. jóge ci entraînement demaat jóge demaat ci entraînement. Mm-hmm. tey Balla li mu war def mooy combat boobu man soo doon du yàgg waaw. combat boobu daal a mën a nekk. Balla Gaye combat bi arbitre bi dafa ne wërë bërët mu dox ci kaw Balla ak Tapha Tine pour man jaxase ko pour mën koo juumloo ci bëre Tapha Tine arbitre bi ne périt mu jàpp Balla Gaye xeex ak moom jaay ko doole daan ko. mën a jaay euh, Balla Gaye doole. ah waaw. ko tax ko. da ngay doole bi xeex ak moom la. da nga war dafa war a jàpp Balla gay xeex ak moom tuuse ko. gis nga bërekat ñuy wax ñuy waxtaan benn affaire tuuti gis nga mbër mu mën a bëre. il faut nga dóor ko mu mën a bëri il faut nga dóor ko ba mu perdre connaissance nga doog ko mën a daan waaye xelam nekkee ci moom pour nga bëri pour nga daan ko ci bëri day jafe maanaam bërikat moo mel noonu bërikat il faut nga tuuse ko boo ko dóoree juraat ko mu xaw a ñëkk yooyu nga mën koo nax waaye bërikat fekk xel maa ngi dox si moom pour nga daan ko day jafe. mais li gars yi di wax naan ay Tapha Tine est-ce que ñeme loolu loo ci wax. Tapha Tine. Hmm. lu muy ragal ci Balla Gaye hmm. mbaam am muy xool ci Balla Gaye na dem bawal mu jël ko tool tool toolu cent mètres hectare mu dem bàyyi ngooñ mbaa mu bàyyi gerte mbaa mu bàyyi bësi tabatit man maa la ko wax boo amee lu muy sikki sàkk ci Balla Gaye wala muy bàyyi gay wala muy bu bàyyi amee lu muy man la tabatin kay moom bu amee lu muy xool ci Balla Gaye wala mu am lu muy sikk sikk sikki sàkk na bu tool bawal cent mètres bu demee bàyyi gerte bàyyi bësi lañ bëri woon ñoom ñaar Balla Gaye bëri bëri bi xeex xeex bi. waaw cette fois ci nag. bu baax léegi matul fukki at. Tapha Tine fu mu jaar. bëri na. ñaata mbër la fi duma. bëri nañ de. ah fu mu jaar ak Eumeu Sène fu mu jaar ak Bombardier ah. Boy Niang léegi Balla Gaye fu mu jaar bom Balla Gaye fu mu fu mu jaar ak Boy Niang fu Tapha Tine jaar ak Boy Niang Bombardier fu mu jaar ak Balla Gaye fu Tapha Tine jaar ak Bombardier Eumeu Sène fu mu jaar ak Bombardier fu Tapha Tine jaar ak Bombardier fu mu waaw Tapha Tine fu mu jaar ak Eumeu Sène kon kay làmb wane na boppam xam nga la ma la bëgg a xamal seex 1 mètre la kilo muscule boo dawee yëpp dama la wuti tool nga jaay ngooñ ak gerte boo amee koy ragal demal jaayi bësi Tapha Tine laa la wax boo amee lu muy sikki sàkk ci Balla Gaye dem dina wuti tool dem jaayi bësi Balla Gaye mën na dëkk dékku euh, Tapha Tine ci xeex bu yàgg non Balla Gaye warul xeex bal Tapha Tine xeex bu yàgg Balla Gaye man su ma ko Balla Gaye bëgguma sax mu jàppante Tapha ñuy xeex xeexu suuf Balla Gaye daa war déplacé wu baa bi bala Gaye xel la war a bëreeg parce que Balla Gaye mooy may revanche Tapha may ko revanche Balla Gaye mooy joxe revanche Tapha Tine jox ko revanche kon dama laa may revanche dama lay jox lépp sama expérience man bala Gaye comme la ma waxoon contre Giri bordo ma ne Balla Gaye moo Giri Bordeaux Balla Gaye bu mu dëggal boppam xeex Giri Bordeaux Giri moo war a xeex ak ba ba ko ci biir bëre. man leen Balla Gaye mën na daan Gris Bordeaux parce que moo gën a xajam bëre Balla Gaye jël na coup kaawte ximmili ko ñëw lijjanti expérience raam ñi daan Gris Bordeaux dem yoonam Balla Gaye noonu la war a bëree Tapha Tine 100 pour cent kan mooy favori 100 pour cent ah 100 pour cent ah tey foofu boo ma joxee 100 pour cent ko koo ko jox ku Balla Gaye parce que moom moo mëne woon 1-0 moom moo mëne woon 1-1-0 ah match de bu match de bu tey bu Real ak Barça bu ñu doon fubal ki dóoroon ale ba retour bu ñëwee koy favori Balla Gaye jox favori ba gis leneen. mais mais gis nañ am nañu ne comme Balla Gaye lu mu toog bëriwul ak Tapha tamit ci diggante bi performance mu def ak yooyu. Mhm. est que newul tamit loolu moo tax ñu jox favori ki nga xamante ne mooy. non combat ba combat ñu naan combat mooy Modou Lo ko daw parce que làmb dafa jotoon mu xeeñ bawal. parce que boo xoolee ténor yi fi nekk yëpp poids lourd yi fi nekk yëpp mel num benn combat moo fi amul muy Modou Lo Tapha Tine te Modou moo ko daw parce que yaay roi des arènes. Modou yaa xam te rek mënoon na koo xaar. de koy xaar bu ko fa Tapha Tine xaar est-ce que du guddee Modou Lo daa bëree ne man damay noppalu ci biir noppalu gi. Tapha Tine moom comme yi ne leen taf Modou du bëree fii ak at lañ wax n'est-ce pas loolu lañ ko wax Tapha Tine toog ko fi xaar. loolu ko jàppee yow. tànn fu nooy la.